jam wodi hewre e yerse ndilam wodi hewre e yerse yetter sabu yerkoy yetter sabu yerkoy yetter sabu yerkoy bangugo yer kamba isabel bangugerga yetter sabu yerkoy
ay boy wuyu ma dama lay laaj ay boy yedma dama lay laaj ukuma lu baxar ci ma dama lay laaj akuma ratu tam dama lay laaj xam naa li muy laaj ñaar ku ne mi ngeeg li muy laaj damay bëgg a jaaxle ndax aw ma choix ci ñaar ñu doy waar
bëgg nga ma yaa ngi xel ñaar bu ko ko xar sa xol bi ñaar bii bi xëy na ñi fi jot a jaar ñoo foowe sa xol ba nga foog ni ñëpp a soxaar góot lu mbind da cee def ñaar te yow yaay sama genn wàll man asamaan si ni mu yaatoog naaj bi li muy tàng yaay keppaar gi nëbbu naaj bi
damay bëgg a jaaxle aw ma choix bébé xam naa li muy laajte
li ngeen nga bul jaaxle mbégte duniya yi rek laa la yéene
damay bëgg a jaaxle aw ma choix bébé xam naa li muy laajte
yow li ngeen nga bul jaaxle mbégte duniya yi rek laa la yéene maa gisee nga naan nga maano te nday ji seex du am ci jamaale mel ni asamaan si ni mu yaatoo ak bidéew yi ni ñu taaroo néeg na ma way jaaxle na xaaw ma ki ne taana lingeer maay la ti job degen baay balaa ko xalilu laay njaboot ga lay wutal yaay te kër ga yaa fa doy liggéey waay maa di góor géwél ku si ndax ma lay bégal soo bëggee ma lay wayal jot na nag tama waay lingeer kaay soo bañee ma wet kaay kaay yey sama weer waay damay bëgg a jaaxle aw ma choix bébé xam naa li muy laajte
li ngeen nga bul jaaxle mbégte duniya yi rek laa la yéene
damay bëgg a jaaxle aw ma choix bébé xam naa li muy laajte
li nga gëmul jaaxle mbégte duniya yi rek laa la yéene
li may yëg si xol wi du tànn mbëggeel dëkk xol du fen su ma la tooñee nag ma baal bi ma ñëpp fole yaa ma faal yàlla def fi ñu yegg si tey kon nag du ma bàyyi lu mu metti metti kon waroo di ndax doo taw wee fii léegi yaa ngi gëstu gis ma ci sa wee kenn du la jàmm naa ni si le parwal maa ngi nii ma lay aar si sa wet lay fa naan si lu mu guri guri benn ak ma xaar kay ci kama nga wax ma chéri boo bëggee bëgg naa boo bëggul bëgg ma yow ci kama wax ma boo bëggee bëgg naa boo bëggul bëgg rek waaye ñun ñaar ñaar yaanandoo ku la bañ na bañaale ndax ñun ñaar ñaar yaanandoo man bëgguma ragal naa nit di dox di ma gis naa yow kon du nice yow dang ma faa dam la faa li nga gis si ma ne ci yow xol bu nice mën naa la jàpp yëkkati la ba ne ñëpp xam ne yow la sama xol bi yaa ko dàmp di ko bëgg noo ko bëgg yaa ko fa am danga ma jege yoo ko man ndam mi day dema te noo ko bëggee bëgg naa kay ci kama nga wax ma chéri boo bëggee bëgg naa boo bëggul bëgg ma yow jege ma wax ma boo bëggee bëgg naa boo bëggul bëgg ma ay dawalal chéri dawalal yaa téye volant bi bul taxaw dawalal ay dawalal mon bébé dawalal yaa téye volant bi bul taxaw dawalal yow laa yow laa yow laa yéene sama xol ndax dama la ofte sax ka formaa ci dama sensible dëgg la dama fil bëgg laa jox sama xol bi ndax dama la xale bi dama laa jox sama xol bi ndax dama la nova dama la koy jox dama la koy jox loo fi nekk ci man chéri ba noppi soppi sama sam dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox loo fi nekk ci man yàlla ko def loolu loo ma ci man ah eh ah man ah xaw ma lan la maa ngi dund love so bu ma yem bul ma laaj lu ma dal ni sama nobel amul fu mu yem xale bi sama laajoon jant bi noo tey du fanaan xale bi sama laajoon sama bakkan dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox loo fi nekk ci man chéri ba noppi soppi sama sam dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox loo fi nekk ci man yàlla ko def loolu loo ma ci man ah eh Gauche ou à la droite, dis-moi. Si tu veux en haut, en bas, dis-moi. Le tank, voilà le 7, dis-moi. Me servir le pour 19h, jotee ñu tëddi. Na metti na yàgg na mel ni. Xale bi bu ragal na nga yegsi. Ñun kese la ci kër gi na jolli. My baby, touch my body. Woo. Every day ma jox la nga ne ci. Xale bi teg ma lu metti. Bu yéexee ci yow la noonu du ci maanaay. Ah, man, ah, xaw ma lan la. maa ngi dund love so bu ma yem bul ma laaj lu ma dal ni sama nobel amul fu mu yem xale bi sama laajoon jant bi noo tey du fanaan xale bi sama laajoon sama bakkan dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox loo fi nekk ci man chéri ba noppi soppi sama san dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox loo fi nekk ci man yàlla ko def loolu loo ma ci man dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox loo fi nekk ci man chéri ba noppi soppi sama san dama la koy jox dama la koy jox dama la koy jox loo fi nekk ci man yàlla ko def loolu loo ma ci man ah oh yeah oh yeah ndekki xale bi rek la nopp man xale bi rek la nopp oh yeah oh yeah ndekki xale bi rek la nopp man xale bi rek la nopp Wana ci yàlla gisuma lu mel ni lii ay kon baby yaa ma mottali man saa yum la xoole leer ba mel ni jant ji baby yow yaa ma tàmmali Wana ci yàlla baby yaa ma gënal gaay yi dootuma la bàyyi jox naa la xol bi xam nga loppi dum si taayi munuma la bàyyi yaa ma gënal wurus nga la saxar kanam nga sa ginnaaw badan baby yaa ma gënal wurus nga la saxar kanam sa ginnaaw badan oh no baby yaa ma gënal wurus nga la nga la nga la yeah, wurus nga la baby baby nga sa ginnaaw badan badan badan yow sa ginnaaw badan oh no baby yaa ma gënal jaroon nga ma lab si géej gi man de fonk naa la duma la teg lu metti wanaa ci yàlla de nga coofe baby sama xol bi yow la kenn mënu ko wéeti ja la bàyyi jóg naa la xol bi xam nga lóp bi du ci tàyyi mënuma la bàyyi yaa ma gënal wurus nga la saxar kanam nga sa ginnaaw ba nag baby yaa ma gënal wurus nga la saxar kanam sa ginnaaw ba nag oh no baby yaa ma gënal wurus nga la nga la nga la nga wurus nga la baby yaa ma gënal sa ginnaaw ba nag ba nag ba nag yow sa ginnaaw ba nag oh no baby yaa ma gënal
kon bu ma kenn laaj sama xol man xol bi ma yor moo ëpp alal sama waay la sama yi caprice yi muy décoré guerre la saa yu ma laajee lu tax chéri bëggo or ma naan ko bébé yaay sama jama si benn xalima la la yàlla bindee man maa la moom sama destiné yow la yow la xas naa la wóolu ay sama waaji foo ma joxoñ ma ni ay cëf xëccëwu ma kenn sama yëf man moom li ñëpp laaj la ma jox man mani li ëpp solo ci nit la ma jox man waaw waaw kon lu ma kenn laaj sama xol man man de xëccewu ma kenn sama yëf man mii la moom li ñëpp laaj la ma jox man mani li ëpp solo ci nit la ma jox man waaw waaw kon lu ma kenn laaj sama xol man xam nga luy mbëggeel xol dafa sori si nit kenn du ko foowe li ñëpp laaj la ma jox man xam nga luy jafeel xel dafa taaru si nit kenn du ko pasar pasare ba mu ne rek mën nga xel dafa sori ci nit kenn du ko pasar pasare nee ma waaw nee ma waaw yaa ko fa am moo ko fa am yow boo ko bëggee caka caka dox nga daj séeri dooy malay
maturité bi ci moom am niveau dafa understand ni ma mel ak sama jikko lu ma joxoñ dagg na ko mu war a siiso musul nangu kenn jaxase kook man aussi bo ma lay woyal gumbe nga dëkk ci di ma gunge li ma jaaxle woon fi ma jaaroon yaa ma fàttaloo dimb léegi maa ngi baax man xëccewu ma kenn sama yëf man moom li ñëpp laaj la ma jox man ma ni li ëpp solo ci nit la ma jox man waaw waaw kon bu ma kenn laaj sama xol man man de xëccewu ma kenn sama yëf man mii la moom li ñëpp laaj la ma jox man ma ni li ëpp solo ci nit la ma jox man waaw waaw kon bu ma kenn laaj sama xol man xale bee metti doxal bëri feem tegsi dikkal moom bu la jeex koo xamul baale xamul maye nga ne kuñ ne ko takkal bëgg koo moom rek la bëgg kon bu ma kenn laaj sama xol man devant Dieu, Dieu et les hommes, hommes, il a décidé que toi, que ma femme. laajal ma xale yi ndax bëgg nañ leen. nga ni bintu bëgg nañ ko. elle a dit oui officiellement dafay ne.
Le plateau du Sénégal, sur Radio Galère Marseille, tous les samedis de 11h à 12h30.
nga sama jamono te sama loxo wan ma luy mbëggeel xamal nga ma luy nobeel yow daal jëlal lépp loo am ñàkkuma ko leer na ma wuy nobeel xam naa lan muy mbëggeel dara gënu neex mbëggeel bi nga yëg ci sa xol dund ko yoo bale ma yoo bale ma gis naa ci yow jikko ju ma neex lu ma doy feex sama xol bi ooy bëgg naa ñu ngi kafoore fu ñu nee ñu ngi door daaxe ñëpp ñu ràññee te foo ne rek laay bëgg a ne fonewul duma fa bëgg ne yow yoo bale ma yoo bale ma yow bébé dama réew nga ne ma loxo du la laal yow bébé wayal ma nga ne ma Youssou Ndour la yoo yow àdduna bi suma safee dara yaa ko neex yow wane nga ma fu ne duma réer ko fee wuy nu benn modèle la xamal nga ma luy ma gën li may
yow yaa may tax di jooy yaay sama mbaax di sama doole yow sama bàyyi fan laay fanaane waa koñ bi dañ may xool naa nu mu demee nii si àdduna amul lu ma mën a safati nga yóbbu sama xool xel bi mënul doxati dem nga yóbbaale lu ma dul amati yenn saay ma jaxasoo mujjee saali suma lambee sama ginnaaw gisuma la lu may miti dafay gën law dem nga yóbbaale sama xool xaw ma foo aw wéetoo wéet naa li ma jàppoon dem na bàyyi ma ma wéetoo wéetoo wéet naa li ma jàppoon dem na bàyyi ma ma wéetoo
yeah wéetaay baa ngi lay gaañ boo sañoon nekk ak moom mbëggeel daa bëri doole te kenn du xeex ak moom man ngeen ko dund mu neex comme bu Juliette ak Rome booy waruloo nangu mu yam fi bañ koo ngir seen ay noon te juboo sax mooy li gën même booy mer tamit na ngay baale xëy na bés na ñëw got def li gën bañ ak lamiñ sax dañuy laale yow mu nga bëgg moom si yow la doof bu leen xuloo ba di noonoo yee mere na la mais si yow la doof jëlal sa kóol te nga woo ko
àdduna wër nga lay jiital koj ma ci jant bi soo mën a mee jot gi mayatuma teew bi waaye ci mbégte lay mujj soo ko muñee muñal dina xëy neexi cofeel nga rëggay sàmm ëllëg dafa jar sedd sa doom yi dañuy màggi bu doon misaal la ci yow man yaa di kiiraay borom zaman lañu boole daar dunia keneen gënul musuloo tax ma dégg muñal borom zaman lañu boole daar dunia bu kenn bëggul bëgg naa ma déggal ngaay bu kenn dikkul na nga may yàlla def nga war laa ma su ñëpp demee wàcc ma ak yow la daar dunia su ndellu see fekk ma ak yow sura yaa di kiiraay bu kenn bëggul bëgg naa ma déggal ngaay bu kenn dikkul da nga may yàlla def nga war laa su ñëpp demee wàcc ma ak yow la daar dunia su ndellu see fekk ma ak yow sura yaa di kiiraay muy taw mbaa mu naaj muy guddi mbaa bëccëg waa dëkk baa nga naan jig nga ma caal wajal musuloo xadi ci man du ko may rusuloo itam tasoo sama yaakaar xarit sama su tuure yaa di kiiraay mu ñëw dina xëy neexi cofeel nga ragay sàmm ëllëg dafa jar sedd sa doom yi dañuy màggi bu doon misaal la ci yow man yaa di kiiraay borom zaman lañu boole daar dunia keneen gënul musuloo tax ma dégg muñal borom zaman lañu boole daar dunia bu kenn bëggul bëgg naa ma déggal ngaay bu kenn dikkul na nga may yàlla def nga war laa ma su ñëpp demee wàcc ma ak yow la daar dunia su ndellu see fekk ma ak yow sutura yaa di kiiraay bu kenn bëggul bëgg naa ma déggal ngaay bu kenn dikkul da nga may yàlla def nga war laa ma su ñëpp demee wàcc ma ak yow la daar dunia su ndellu see fekk ma ak yow sutura yaa di Le plateau du Sénégal, sur Radio Galère Marseille, tous les samedis de 11h à 12h30.
Non, jamais. Tu es assuré à vie, garantie à vie, bébé, je t'aime.
xale bi man ak man su ma rombee sama yaram di daw si ama nooy c'est ma préférée
Love you, baby, love you, baby, love you, baby.
bàyyi la jigéen Love you, baby, love you, baby, knock na na ma. Chérie, love you, baby, love you, baby, oh, baby, baby. Love you, baby, love you.
Tu es assuré à vie, assuré à vie, assuré à vie, bébé.
Tu es assuré à vie, assuré à vie. Dakar, Garantie à vie, bébé.
Batuli Nyang.
Si i ka di n ye.
nafiso madame ludeso.
Sini tuni muso vive o muso te tarara jamais, non jamais. Tu es assuré à vie, garantie à vie, bébé, je t'aime.
Khale bi man of man, suma rombe, sama yaram di daw. Siama nooy, c'est ma préférée.
Love you, baby, love you, baby.
nafiso madame ludeso.
Love you, baby. Love you, baby. Love na na mana. Shady love you, baby. Love you, baby. Oh, baby, baby. Love you, baby. Love you.
Wallahi sama shiri koko nyana. Billahi nene ka shiri koko lara.
Eh, sabaje gogo nyaura. Yeah. Nega shiri gogo nara. Jere, jere, jere. Sama polo ye. Jere, jere, jere. Sama polo ye.
Aja sama jeri, boleh kau symphony ini mali jok sedikit.
Mutagi koniwa, their music para mara.
Beganala, beganala.
Bebe mi fe, me mi fe, be.
Sama shiri na banala, na banala.
Ika di nye me mi fe mama.
Est-ce que xam nga li nga yor xale bu nga yam gërëm maa ko fa am ànd ak keneen jàpp la yow ki ñam di woon nga am ñeneen ñi duñ dërëm maa ko fa am ànd ak keneen jàpp la maa ki taxoon ñu sàkk la ang bang ñu takkee aras koo mën a nekk keneen tamit jàpp la may ki sa yaram laajte ndax may ki koy dawal ko mën na nekkal keneen tamit jaawal nekk ak keneen jàpp la sa ex jàpp la nangul ni man nga doon bàyyil sago jàpp la nekk ak keneen jàpp la sa ex jàpp la nangul ni man nga na bàyyi sagu jàpp la ey ndànk rek ma dala jël bu gaaw amateur yi bég ñi bég feebi rek match ni loolu mënta ne doon sa gelu rabi sangul loolu set chance dëgg la am ku mel ni man ci sa wet li ñuy bëri bëri yow may sa préféré defaat te xaju fi mbaar am na soo wette li ngay wëri feneen yow fii rek nga koy amee ndax may ki ko am maa ko am bam bëri doole sa pointure mën na keneen jàpp la ay boobu mbëggeelu sur mesure waxal sa dëggantaan sa dëggantaan ku lay gaañ ku lay jokes ka xam nga li nga yor xale bu ndeyam gërëm maa ko fa am ànd ak keneen jàpp la yow ki ñam di woon nga am ñeneen ñi duñ dërëm maa ko fa am ànd ak keneen jàpp la maa ki taxoon ñu sàkk la ànd bang ñu takkee aras doo mën a nekkal keneen tamit jàpp la may ki sa yaram laajte ndax may ki koy dawal ko mën na nekkal keneen tamit jaawal nekk ak keneen jàpp la sa ex jàpp la nangul ni mën nga na bàyyil sago jàpp la nekk ak keneen jàpp la sa ex jàpp la nangul ni man nga na bàyyi sagu jàpp la ànd ak man day def effet man rek damay yokk taar wante nga ngoy bu dëgër ban de touche bi ñoo ngi xaar man rek la jàpp keneen ko àndalit du dem kon ñi di la topp soo yaboo ne leen ñu yam ñi naan la yow fan yi danga leer soo goree ne leen maay diw bi ngay diwoo li tax ba maa jiw ñun mënuñ xuloo yàlla ko def suñ la waa ni ñoo juboo ndax maa def ci yow valeur dañ lay war ko may futu jarum wiri wiri man nga nopp ale retour waxal sa dëggantaan sa dëggantaan ku lay gaañ ku lay jagas Est-ce que xam nga li nga yor xale bu ndeyam gërëm maa ko fa am ànd ak keneen jàpp la yow ki ñam di woon nga am ñeneen ñi duñ dërëm maa ko fa am ànd ak keneen jàpp la maa ki taxoon ñu sàkk la ànd bang ñu takkee aras doo mën a nekkal keneen tamit jàpp la may ki sa yaram laajte ndax may ki koy dawal ko mën na nekkal keneen tamit jaawal nekk ak keneen jàpp la sa ex jàpp la nangul ni mën nga nu bàyyil sago jàpp la nekk ak keneen jàpp la sa ex jàpp la nangul ni man nga na bàyyi sagu jàpp la
stress la daan dund ak yow ma wan la ginnaaw lépp leer ba maa ci loxo yu mi yaa di dund lu ne xooloo guddeeg bëccëg laa doon dund ak yow ma wan la ginnaaw la fi neex ma votel ki ma bëgg mu gaañe sama xol président de mon amour toogul rek di xool du ma ko tëkkale boo président bébé bàyyi na problème yi nga ma tegoon man mi ma wan la ginnaaw la fi neex jàpp naa du ma bàyyi li ma doon seet moo ngi nii sëy bi dama ko xëcc bàyyi ko daf ko ci ma mix noppalul waay ba beneen yoon rek mu naan naa ko may beneen chance mu naan dootuma ko defati ex merci ma cal saw rëcc naa la ex dootuma jotati
You are listening to DJ Skya.
lii la rek man damay xëy di kontaan moom saa yu yeewoo gis ma ne di si suuf nii la rek léegi damay xëy di kontaan moom saa yu yeewoo gis ma ne di si suuf rëcc fekk na jëf weesoo eh, loxo yi ma ne moo ma gënal moo ngi may toppatoo di def li gën ci man mi loxo yi ma ne moo ma gënal bul mës di nangu kuy fowee sa xel alalu ku sàggan ku farloo ko for femme de valeur man ni la mel ci maayo ma tëgis waaye amoon na ko waaye na problème yi nga ma tegoon man mi ma wala ginnaaw lépp leer jàpp naa du ma bàyyi li ma doon seet moo ngi nii sëy bi dama ko xëcc bañ ko daf ko ci ma mix noppalul waay ba beneen yoon rek mu naan naa ko may beneen chance mu naan dootuma ko defati ex merci ma cal soo rëcc naa la ex dootuma jotati nii la rek man damay xëy di kontaan moom saa yu yeewoo gis ma ne di si suuf nii la rek léegi damay xëy di kontaan moom saa yu yeewoo gis ma ne di si suuf mu naan naa ko may beneen chance mu naan dootuma ko defati ex merci ma cal soo rëcc naa la ex dootuma jotati
dégg naa ñu naan daanaan boo gis naanaan ñu nekk ci ginnaaw yaa di sama daanaan lii de wóor na ma li nga jàppoon ba mel ni bu ko bàyyi te jig na la ñi la toppoon ba ngay gone ñoo teew tey ngir gunge la daakul doxel ne ku la laal man dina ma yëngal man yow rek laay topp ma chérie ci xale bi yaa ma yëngal sama xol bi waaw fi nga yow ak a sori li may def ku ko dundal mu ko xam dégg nga bëgg nga ni ne xëy ku ne xam nga ki lay bégal ku ne xam nga ki lay gaañ ku ne toppal ki lay yëngal ku ne toppal ki lay gaañ ku ne xam nga ki lay bégal ku ne xam nga ki lay gaañ ku ne toppal ki lay yëngal ku ne toppal ki lay gaañ yow yaa mën yaa ëpp doole yaa fekk xale yaa mën yaa ëpp doole yaa fekk xale yaa mën yaa ëpp doole yaa fekk xale yaa mën yaa ëpp doole yaa Chérie mani la tey may sa ndeer jëlal pasma bi faj na ba nga weer yow dee ko raay dee ko def ni nga ko bëggee du lu ay waaw takk leen jaaji kii ma doon seetaan mu ngi nii lii dafa neex man ma ni chérie yaay fi jóge du ma la weccoo keneen waaw waaw waaw waaw kon yaa ngi nii sama bandi bi waay boo saloo daagul ma daal di si waay yow yëngal noo ma yëngal kañ ñu gisee waay bébé daanal nga ma ku ne xam nga ki lay bégal ku ne xam nga ki lay gaañ ku ne toppal ki lay yëngal ku ne toppal ki lay gaañ ku ne xam nga ki lay bégal ku ne xam nga ki lay gaañ ku ne toppal ki lay yëngal ku ne toppal ki
temb ni boo waxee si temb dootuma la dégg damay kumba tax lool tekku naa fi coow ni boo waxee ba yëkkati sa baat bi damay muuma loo te xol du gàttu kenn du ko daga daga te xol du pizza bëggu na tëll di laaj paar amoo leen fi paar benn paar la jox naa la ko ananti ngay dóore di matte di dompa di gajji yaa rafet di ko rafet xool sa mën na paate ngay dóore di matte di dompa di gajji yaa rafet di ko rafet xool sa mën na paate man sama dee dee yàlla gaynde may rey man suma dee bëgg damay bëggaale sa démb ak tey teewlu la waxal yow waaye man ak yow danga sikki ñëpp ko wax taxul ma dem bala e luñ la waxal yow waaye man ak yow danga sikki ñëpp ko wax taxul ma dem bala jarul ngay laaj bi man ak man luñ ma mënti waxal man ak man maa toj gaasi man ak man e xale bi ko nopp ne man ak man e maa ñëw këf la coppet maa koy neexal ci pet dal sam kaw rek toj ni benn nen bu bondee ci kek sur le plat lañ fi teg xam naa ni yow laa fi fekk yor naa sikkim pour nga téye ci mbéj ni may sa sikket ok voilà jubluwaay nga kaaba jàppal sikkim ne abasa ma ne wata voilà foorem foorem maa ngi fa ëppal xaw ma ndànka doxalal foo dox ba teggi jóg ma teg fa tànka dem jógal ñu dem nalawi naaw ci kaw ne alali yaaraw héritage ma deewee lekkal sawa alali xam nga maa la nopp dam la nopp nobaale sarab bi c'est normal ma dof ci yow parce que yaa yor sama garab bi kule woo kule woo bu la teewul maa lay woo di amay tooñ ma lay tooñ suñ mbëggeel mi moo raw coono sama bëlim fi mu nekk moo baax bu dee daal law ma yokkaat bu reetaane lay kontaan xale bi li yaa raw seytaan yaa raw seytaane ba suma dee dee yàlla gaynde may rey man suma dee bëgg damay bëggaale sa démb ak tey teewul luñ la waxal yow waaye man ak yow danga sikki ñëpp ko wax taxul ma dem bala e luñ la waxal yow waaye man ak yow danga sikki ñëpp ko wax taxul ma dem bala jarum ngay laajte man man luñ ma mënti waxal man man maa toj gaasi man man e xale bi ko nopp mu ne man man jarum ngay laajte man man luñ ma mënti waxal man man maa toj gaasi man man e xale bi ko nopp mu ne man man baby ku ma la nara xañ jàll fale soo ma rëccee lu mel ni fan laa koy jëlee bëgg naa man saa yoo geesoo gis ma si sa wet chéri kañ ñu juboo surtout loolu moo dàq lem déglu kii ñëw na la bàyyi ma kooku am noon la mbëggeel capitaine mu borom man de commando la bato dem bato koste ki ko bëgg man de duma koko may kër gi benn sërë fi ne ma koy takk jàllal ba càkka njaay léegi damay ngoy ci sëy bi sëy fi yokku cere dolli ñeex Shitty, shitty, shitty. roy ci yow mel ni daakaande léegi damay ngoy ci sëy bi sëy fi yokku cere dolli ñeex fan yi dama feros jonge lool sa jëkkër boo ko yore def ko xale wale léegi damay ngoy ci sëy bi sëy fi yokku cere dolli ñeex fan yi dama feros jonge lool Le plateau du Sénégal, sur Radio Galère Marseille, tous les samedis de 11h à 12h30.
ci biir xol wara dëggu xoluma melokaan dama la jiital bu ñu naxante bu ñu warante jox naa la sama xol bi bu ko foore ku bëgg bëgg naa ku bañ na ma bàyyi ak yow yow mi ma tànn ci biir gaañi yow laa nopp waat naa ni sama xol bi yaa jinne yow mi ma tànn ci biir gaañi yow laa nopp kii ma ree ma lay ree affaire yooyu damay dundal di ma xool ma lay xool baby lefin yooyu damay dundal ndax xam nga fi nga tollu ci man tey ma won la fi nga tollu ci man xam nga fi nga tollu ci man tey ma won la fi nga tollu ci man jam faman bete yàppo xool bu gisul ku mu miin weer ki la bëgg bu ko tax di jooy te ko bégal te ko sawe mbëggeel nu mu neexee noonu la mettee bu xoli gisee dafay gën a neex reema reema chéri boy reema waroo ma sori chéri boy jege ma te ma reema lay ree affaire yooyu damay dundal di ma xool ma lay xool baby lifin yooyu damay dundal ndax xam nga fi nga tollu ci man tey ma won la fi nga tollu ci man xam nga fi nga tollu ci man tey ma won la fi nga tollu ci man yow laa nopp xamal ni yow laa nopp bu dul yow du doon beneen baby man yow laa nopp jam faman bete yàppo ki la bëgg bu ko tax di jooy di ma ree ma lay ree affaire yooyu damay dundal di ma xool ma lay xool baby lifin yooyu damay dundal ndax xam nga fi nga tollu ci man tey ma won la fi nga tollu ci man xam nga fi nga tollu ci man tey ma won la fi nga tollu
wax ma loo bugga ma defal la ko wax ma loo nama chéri ma utal la ko même bu dee oto ma jëndal la ko yóbbu la ci château nga dëkkee dodo dama xam fuy xasan foofu laay wokka sa ex yi la doon sonal ñëpp laay nukka ak la ba ca kaw kenn du la jot jox la xiir bi nga leen di caw ma taxaw naan ko ñaaw yow bëggeel dafa neex bu koy café sax day neex sa biir xol bi lay jàpp mel ni denc dugal biix mënoo xam li muy wax tànk demoo ci ba mu jeex foog nga ñam kaani waaw doog a xam lu lem di saf awa nee na ma dafa neex max fu nee na ma dafa neex kajaa nee na ma dafa neex may mu ne nee na ma bëggeel bi laay dafa neex kon dama la bukka te ko mu metti nee na amoon ñaar bay ko wala ma laa joo masaa yoo eewoo nga nuy gis ni longo ma naan ko bëgg la bëgg naa ko dawal fi ma la jàpp nga ne ax maa ko xam te dama koy dawal bébé xam nga man lu tax ma bëgg la dama ci sawar danga fekk fi ceeb bu keccax nga valoriser ko sànni ci ndawal ndaxam laax dinañ ko sëlmoo ñun dañ koy gëpp sama carte bi yow la foteel ak sëy bi jàll ci leneen konta nga mber ma maa ngi baax jox ko ndox mu naan mu kiix loolu mënul ñaax ndax mbëggeel dafa neex bu koy café sax tey neex sa biir xol bi lay jàpp mel ni denc dugal peex mënoo xam li muy wax tànk demoo ci ba mu jeex foog nga ñam kaani waaw doo ko xam lu lem di saf abaa nee na ma dafa neex ngoone nee na ma dafa neex habib nee na ma dafa neex même ay Aïcha Aziz nee na ma mbëggeel dafa neex konte ma la bukka te ku mu metti na nal amoo ñaar bay ko wala ma laajo saa yoo eewoo nga nooy gis ñu longo ma naan ko bëgg la bëgg naa ko butul leen di dawin dinaa ko def ndax yaa ma jara loolu te mbaa tekki kuru la oo moom mu may tal man ma koy bëri xam naa naan la lool lool ñun bu ñu bëggee moo ñu bëgg bu ñu jooyee mën a jooy loo
bëggee daf may dal dal na fi bu ne aw la sóoru aw aj ko ci kaw béy bi daa doo ko di suuf yow mi ma nam xam naa ni yaay l'enfant déedéet ni doole yemul ñamal ba xam man aw laa bëgg aw la ma nopp ay le xam moo ko nooy ne waaw wallaay aw mi ko def xam naa ni yaa ka tey def bi mbëggee la ko nduróog ni bàyyi bëggee woon sa yaay qu'est-ce que ça fait suñu wéetee sa loxo yi may teg may daanu def na effet ma li ngi yow man yow yaay sama reflet dorog bi may laaj sa deret laay pikiiroo ba keroog may overdose jamaa bu la sa deret laay pikiiroo ba ñu may overdose lii nii sax di neex yaa ko moom te fii nii ku dul yow war naa doo fi root baalal ma maam ku ma lambaay baalal ma mbëggeel ku mu jàpp daal balay baay nga tàggoog sago lii nii sax di neex yaa ko moom fii nii ku dul yow war naa doo fi root baalal ma maam ku ma lambaay baalal ma mbëggeel ku mu jàpp daal balay baay nga tàggoog sago dal naa fi mu ne dugg nga sama surface ma mokkee di ma tàbbaas sa lawal day toj kaas di jot nga di ma jox kaas bébé xam nga doo seen maas bojo bojo du la tànnaas man du monot wala cristal bébé xam nga danga say saaye man xale laa xaw ma yooyo nga def ma noonu ñamal ma yooyo qu'est-ce que ça fait suñu wéetee sa loxo yi may teg may daanu def na effet ma li ngi yoo man yow yaay sama reflet dorog bi may laaj sa deret laay pikiiroo ba keroog may overdose jamaa bu la sa deret laay pikiiroo ba ñu may overdose lii nii sax di neex yaa ko moom te fii nii ku dul yow war naa doo fi root baalal ma maam ku ma lambaay baalal ma mbëggeel ku mu jàpp daal balay baay nga tàggoog sago lii nii sax di neex yaa ko moom fii nii ku dul yow war naa doo fi root baalal ma maam ku ma lambaay baalal ma mbëggeel ku mu jàpp daal balay baay nga tàggoog sago
yow yaa tax suma solo bay daagu billaay yow yaa tax fu ma mën a dem ci lu ma mën a nekk xel te jóg ci yow non sama baby love doxalal dama la ci wóolu doo ñoom te duñu yow yaa mën ci côté boobu baby dawalal foo jaar yoon la bul teggi fi nga jàpp fala bu dara yomb dee ko yëngal mu saf wuti laa ko yëngal soow mi dee ko yëngal mu saf wuti laa ko yëngal suy xeesale li nga may def saf na ma lii lu mu doon xaw ma ko xale bi la jóg mën na ma sama paradise aljana li nga may def saf na ma lii lu mu doon xaw ma ko xale bi la jóg mën na ma loo tere ma ba loo digal ma def foo ma yóbbu fa la ci yow rek la des ku ma xool ci yow mere ma aw ma ci yow sago ni nga may def sama xool bi yaa ci ne sama chéri ko ni nga may def bu suuf seddee ba lépp ni selaw cuuraay li di jolli ba bët sette kenn du nelaw loo def aayul bilaay daagul jaayul ñam naa ko neex na bàyyi naa xam nga ni amul dee ko yëngal mu saf wuti laa ko yëngal soo mi dee ko yëngal mu saf wuti laa ko yëngal si xeesale li nga may def saf na ma lii lu mu doon xaw ma ko xale bi la jóg mën na ma sama paradise aljana li nga may def saf na ma lii lu mu doon xaw ma ko xale bi la jóg mën na ma loo tere ma ba
listening to DJ Skya.
bediwul xalaatuma la bàyyi ama lami sona tudduma la mbaay ooy gaañ laa taxul nga ba tooñ laa taxul nga may rëccooy salaaw yen saay nga mer sama njàmbaar ci yow mi la wekkooy dootuma wiiri wiiri jari ndaari lii ma moom laay jële dootuma yónni kenn ci sama waaji man mi maa koy jëli
dootuma wiiri wiiri jari ndaari li ma moom lay jëli dootuma yónni kenn ci sama waaji man mi maa koy jëli
bara maa jóg fajar fekk nga te njaayooy bale kër gi raxas say ndab niki boobu doom ngay waajal
dunda mata ñaanooy ndaxte gaynde dafa koy ju ndax fitnaa loo ma xeboo li ma lay jox lépp loo ma ñaan dinaa la may dootuma def leen lu lay metti sama ndaw si ndax sama nawle nga doon leeral sama yoon yi dootuma nangu mi ndef di dox sama digg ak yow ndax yàlla moo def ci ñun loolu wiy na waay waay gaañ laa taxul nga ba
tooñ laa taxul nga may réccooy salaaw yenn saa yi nga mer
sama ñambaar ci
dootuma wiiri wiiri jari ndaari lii ma moom laay jële dootuma yónni kenn ci sama waaji man mi maa koy jëli
dootuma wiiri wiiri jari ndaari li ma moom lay jëli dootuma yónni kenn ci sama waaji man mi maa koy jëli
gaañ laa taxul nga ba tooñ laa taxul nga may réccooy salaaw yenn saa yi nga mer sama ñambaar ci yow mi la wekkooy
ma fekk mbiskit ca lox ka mu daana boobo sëgg di jooy ma na paaje ko wéwi leen sukkar balaa bu rooci ak tàndar ma jaale ko ma jaale ko waay tàndar ma jaale ko ma jaale ko ma fekk mbiskit ca lox ka mu daana boobo sëgg di jooy ma na paaje ko wéwi leen sukkar balaa bu rooci ak tàndar ma jaale ko ma jaale ko waay tàndar ma jaale ko ma jaale ko sama bébé wutal lu mu nekk bàyyi ma fa suma deewul dinaa boot sa doom rob go ne ko ne ko tam tam tam tam tam ma xale bi yàkkal na ma yow fi ma yóbbu fi may bàyyi lool de neex na ma Attanuma fataar ak sa xeetu cuuraay gongo sama xool ci yow la far doo xuloo te doo tongo baby fi ma jàpp bu yàggee dina overdose yaram may yaram may man yaa ngi xool nu ñu nii dadalee man maa ngi xool nu ma lay bégalee le chien aboie waaye la caravane part be mayal noonu ndaw ñu naan bébé bébé yow gis nga ni it may waxe est-ce que neex na la yow dëngu la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg yow xam nga ni li mbëggee la koy def waay ma fekk mbiskit ca lox ka mu daana boobo sëgg di jooy ma ne paaje ko wéwi leen sukkar balaa bu rooci ak tàndar ma jaale ko ma jaale ko waay tàndar ma jaale ko ma jaale ko ma fekk mbiskit ca lox ka mu daana boobo sëgg di jooy ma ne paaje ko wéwi leen sukkar balaa bu rooci ak tàndar ma jaale ko ma jaale ko waay tàndar ma jaale ko ma jaale ko xale bi dina rey dina rey dina rey bàyyi ay waaye baal ma saay saay nga bàyyi ma xale bi dina rey dina rey dina rey ay waaye baal ma saay saay nga bàyyi ma noonu yaa ngi xool nu ñu nii dadalee man maa ngi xool nu ma lay bégalee le chien aboie waaye la caravane part def mayal noonu ndaw ñu naan
yow gis nga ni it may waxe est-ce que neex na la yow dëngu la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg yow xam nga ni li bëggee la koy def waay Le plateau du Sénégal, sur Radio Galère Marseille, tous les samedis de 11h à 12h30.
sa gis nit ku ñuy tëj te deewagul del ko lu te tër ko rey di kim ki moytu boobu ma trak putigon soyaram fatuwo yakan gatan son abandoy manem bamisko sama dunu melni internet lingi gis bakula klinik gentu gi jaxna legi mari ni di free amatuma ben rotuli ma wesu dama xasa wona gëna duma gesu every now la duma lekat dama deglu mbëgg fay bu ko forcé kat katar bari ci ko lañ ko xamé lépp lu wax lu mew ñamal seet kaay déglu ma man bàyyi na la Mel ni wen ñu may seen ci kaw lépp lu ma nekk mu glow up be amigo man ma la off train bi fii la la ba demal nga toog maa ngi jongo ma lu neex mel ni rose au valentin foo ma say de way de def lu am classe te ci di xeñ neex maa yëngal àdduna jonge sax waru naa Gentu gi jeex na léegi maa ngi nii di free amatuma benn rëccu li ma weesu dama xasa wane gëna duma geesu yabi naa la duma lekkaat dama déglu mbëgg fay bu ko forcé kat kataar bari ci ko lañ ko xàmmee lépp lu wax lu meew ñamal seet kaay déglu ma man bàyyi na la
way wi day neex boo ko dégloo mu dugg la ci xol way wi day neex aada yaay ki nuy bégal wuyu leenoo kontiye yéen a tax may xëy di daan doole garaa yoo faat seen géejawaay ba pikin ñëpp a ngi may dooleel man aada aada boye ngi moo leen di bégal doomi garaa yoo ñëw di leen wayal ak waa kese te yaa ñëw di leen dëggal na may waye neex na leen fa may solo neex na leen ni may doxe neex na leen fa di yéen a ma doole booy ataa gi ni ki mooy ki nuy wayal mooy yàqale booy ngi moo leen di bégal doomi garaa yoo ñëw di leen wayal ak waa kese te yaa ñëw di leen dëggal na may waye neex na leen fa may solo neex na leen fa di yéen a ma doole fal moo ni bul ma laal falaati moo ni bul ma laal mam njaay yaayu taala saar albuuri njaay mooy sa maam ndey njaay awal ay sa yaay buubu si sama waay ku ne li la yàlla may ànd booy ngi nuy bégal si nga bu mooy sa yaay rugi maa la bonk waay yow jugal yëngo mokkum yaayu abisi mala foku waay yo baby yaa ko moom bu suse ba yem xam nga daa ngay réew nga naan sa ñaari fóot takk sa si muy daw
yow rugi foo jugee etu ma la wax ma jugee si foo jugee seen salala jugee rugi loo fa wuti woon nga naan gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu yow benn gulu waay nga naan sa boti takk sa si muy daw benn gulu waay sa ñaari boti takk sa si muy daw moo ma gënal nga naan sa boti takk sa si muy daw benn gulu waay si naan sa boti rugi si muy daw foo jugee etu ma la wax ma jugee si foo jugee seen salala jugee rugi loo fa wuti woon e gulu gulu gulu yow bul ma miin a miin ba fàtte maa yaay cuuli mën naa bëri lool waaye nangul nit ci ndoxul ca fin yow bul ma miin a miin ba fàtte maa waay loo bañ bañ nga mar nangul nopp yu gudd na mën naa daw saf la ba noppi moom moom saf na ba noppi hey kenn du sàppali bari ñu ma romban feet ba daa ko jëm mi nam jëm seen wuy ma yaaya baay moom moo jëm saf na ba noppi saf na ba noppi kenn du sàppali moom moo saf na ba noppi kenn du sàppali aara fet amana fi jaamana bay ba si doom am ma ma yoon daaw si fin ba jaboon géej aara fet amana fi jaamana bay ba si doom am ma ma yoon daaw si fin ba jaboon géej Isma pulma min, pulma min ba Fatima kumunyang.
Dori solfa mi melodi la dalay duggu mani nga be man ci bii bete mën a wey cosaan authentique ni la ko soo buñ def ci lekket bari woo oh mënuñu tolloo ni baaraam yi sa loxo wërsëgu ne borom mënuñu tolloo na ku ne xam moroomam bëgguma di ma toppandoo di ma xaas te di ma toppandoo qualité du toppandoo daal pour man bàyyi nga toppandoo di ma xaas te di ma toppandoo dégg naa ni lekkatoo sax ne la watoo ndax bañ nangu dogal pour man bàyyi nga toppandoo ëpp naa ci ma pandoo daal soo xamoon fi ma jaar ba yegg si fii fa yàllay defari jaam loxo yeegu fa ñaanu yaay la yàlla di jël kenn mënul fakkatal kuy jóg te njal am na ñaanu bay lu may ragal ay waari ginnaaw wax leen maa nga jakaani ñaanu yaay la yàlla di jël kenn mënul fakkatal kuy jóg te njal am na ñaanu bay lu may ragal ay waari ginnaaw wax leen maa nga jakaani bëgguma di ma toppandoo di ma xaas te di ma toppandoo
sale, ils veulent qu'on fasse du sale. Déco Sahar Chicha, c'est ça, que yul ma lay wi sale. maa toog ci lu ñu doon war droit di aas. dafa leer da ngeen passé ba mel ni xar li leen yoon wi ma ñëw li ngeen cóol leen ci man. bon di dëgg teg ci bari doole di daan. ni ñuy joobee du benn maa yore yar bii du ma. féete ci kaw jarul laajte ndax xale baa ngi nii. Fili baay, Moni baay, Suri baay, Choco baay, Mignon baay, Galantini baay, jarul wari feneen ndax xale baa ngi nii. Kan mooy déranger pourquoi ma lay déranger dam leen yërëm di leen arranger waaye ku mënul muñal déranger wu am son fresh metti ni di gagné fu ne dooley Francis Ngannou docteur may faje li ma ci denc du jeex ñaan ma ci ñeek ma may la tuuti nii mais fooy xëccoo dangaa nara ñaax
xaritoo nag man man feeling paaj laa ci amee ñaan ma ma may la moo lay jàmmal ma doo may baal
sañ sere oh maa mën a sañ se am bi asa de wuyaay maa mën a sañ se kee jure bëri fi li mu ne fu ne sañ se maa ci toog mafia bi escorte dating bi xaal la toog flash maa ko moom mettez vous ara man fu mu génn coow li bëri may ma gàcc daaw sama sañ se baax na sama montre baax na sama dal lan la participer si xew mi rek sama xol neex na ma sañ se reetaan te li laa ndaw dal participer si xew mi rek sañ se ree oh maa mën a sañ se ambiance rek wuyaay maa mën a sañ se kay juri Eh, lan la Eh, lan la ndekete maa ngi ca réew Eh, ku ko mun ni nga koy defe. Eh, ku ko mun ni nga koy defe. Sañ
soxor ci xale ne ko du ma bale daw ma sillonné ay wax du ma tardeel sañ si di xëy neex lu ma saf lay def ci risque lay dox doxoo ya fonne du ma bale man du ma jikko bale soxor doon xale dama bëri doole du ma bale man du ma jikko bale soxor doon xale dama bëri doole man dama nekk sama yoon liggéey di xuxa samay noon ñoom lañ may jaay jaay jaay lu ci sama yoon yoon bi dafa leer wax leen ni jaayuma leen geer bi man man na cuu cuu ak jaar loolu dafa leer baleen ñu weej weej rek ay bla bla bla te yow ñu fla fla fla nekk ci yoon aw ma seen temps yeah, yeah. soxor ci xale ne ko du ma bale daw ma sillonné ay wax du ma tardeel sañ si di xëy neex lu ma saf lay def ci risque lay dox doxoo ya fonne du ma bale man du ma jikko bale soxor doon xale dama bëri doole du ma bale man du ma jikko bale soxor doon xale dama bëri doole bàyyi leen ñuy wax ngay def risque la ragal doo ko def man dama accident fi chef tos nag dara du xew Dakar ba Thiès man fa ma jaar ba Paris dara du fa des nangul ma loolu lu ma def mu neex man dama bari feeling wax ma lu si des tos nag dara du xew bale ñu weej weej rek ay bla bla bla te yow ñu fla fla fla nekk ci yoon aw ma seen temps yeah, yeah. soxor ci xale ne ko du ma bale daw ma siyole ay wax du ma tardeel sañ se di xëy neex lu ma saf lay def ci risque lay dox doxoo ya fonne du ma bale man du ma jikko bale soxor doon xale dama bëri doole du ma bale man du ma jikko bale soxor doon xale dama bëri doole Dakar ba Thiès man fa ma jaar ba pare dara du fa des nangul ma loolu lu ma def mu neex man dama bari feeling wax ma lu si des tos na dara du xew du ma bale man du ma jikko bale soxor doon xale dama bari doole du ma bale man du ma jikko bale soxor doon xale dama bari doole
You are listening to DJ Skya.
Solo que escuto salari. Ci wax rek tey dama xëye xol bu neex. Ah, déedéet rek mën nga am njëgu école waaye loolu jëndu classe sama ginnaaw ngeen di coow fu ma gisee da ngay maas. Ngi ñu bañ moom tax fu ne nga wuti di fa yàggee sama der kañ ngeen di puus lay laaj am nga bu ñuul lañuy sànni xeer yow mënuloo ma sànk dama ñafe ba agsi danga ma yéene jël su jeexee jeex na sama yaay dama ñaanal yow nga ni danaa sàkku ëpp yàlla ngay xeexal may ci kuy tël ay ko ba ci kaw a kaw xool ku koy laal su jeexee jeex na may ci kuy tël ay ko ba ci kaw a kaw xool ku koy laal su jeexee jeex na. xam la wér la bëgg te ku ñëw defal la mënoo di yàq nit ba noppi nga bëgg di baax le mis naa sa waxtu ñaaw waxoon nga ma ko daaw lépp yem ak yem ba lii jox ma bay de yow mënuloo ma sànq dama ñafe ba agsi danga ma yéene jël su jeexee jeex na sama yaay dama ñaanal yow nga ni dana sàkku eh yàlla ngay xeexal may ci kuy tël ay tuuba ci kaw a kaw xool ku koy laal su jeexee jeex na may ci kuy tël ay tuuba ci kaw a kaw xool ku koy laal su jeexee jeex na
man ku ma faale ma faale la ku ma talu talu ma la ay joxo ma ma lekk joxo ma ma naan doo ma tere dund na ku nekk tal boppam nekk si jàmm soo meree ki tal boppam doo am jàmm comment tu vas comment ça va ça va va va va va va waxkat yi good morning va mbaa jàmm ngeen yeewoo va va comment tu vas comment ça va ça va va va va va va ku mer kalamel yàlla ku mer kalamel yàlla la fa bi ni macha allah la fa bi ni macha allah bokku ma ñoom ay nuroo ma ñoom ay ay defal nank bin bin man la bis bi dara du xew eh li problème bi problème bi fu mu nekk joxoo ma lekk joxoo ma naan ay doo xool xanaa gisoo ey va man ku ma faale ma faale la ku ma talu talu ma la joxo ma ma lekk joxo ma ma naan doo ma teree dund na ku nekk tal boppam nekk si jàmm soo meree ki tal boppam doo am jàmm comment tu vas comment ça va ça va va va va va va waxkat yi good morning va mbaa jàmm ngeen yeewoo va va comment tu vas comment ça va ça va va va va va va benn nettalikat bu toog fi may toog yàq der baaxul buñ ma takkal waay jàmm si yow ak say mbokk doo bàyyi golo bi ngay bokk ñoom man lañ bëgg man lañ sopp fees na bay tuuru mi ngi toog ku indi lii kan la ñuy toppandoo ku dàq sañ sa fii ku moom million de vues borom tendance seen référence waa ku leen bëgg kon quand ñu danse eh li problème bi cek cek cek cek cek cek joxoo ma lekk joxoo ma naan ay doo xool xanaa gisoo ey va bi sama at la maa xew xanaa neex yëngal ay heure bu ma neex dama koy yëngal par force dama koy yëngal ñu def fecc ko fecc ko boy ay man maa koy yëngal rek rek joñ fecc bu bees la dafa xew avancé doxal dox avancé yaa leen raw doxal dox avancé bul gis doxal dox avancé yaa leen raw doxal dox avancé bul dox doxal dox avancé yaa leen raw eh bëgg mel ni man taxul nga mel ni man eh macha allah bul ma ca tub stop waa doyul non non c'est pas fini yëngal at bi sama at la maa xew xanaa neex yëngal ay heure bu ma neex dama koy yëngal par force dama koy yëngal ñu def fecc ko fecc ko boy ay man maa koy yëngal rek rek joñ fecc bu bees la dafa xew avancé bul dox avancé yaa leen raw doxal dox avancé bul gis doxal dox avancé yaa leen raw bii bi njëkk na avancé bul tontu et bii bi avancé def pat bul tontu bii bi xaw a yu am fay avancé doxal dox avancé doxal dox bii bi njëkk na avancé doxal dox et bii bi avancé def pat bul tontu
Le plateau du Sénégal, sur Radio Galère Marseille, tous les samedis de 11h à 12h30.
et puis quoi yow la kan xamuloo ma di wax ci man seetuloo bëgg di ma tam man wàññi allure bu mel ni du daan ñi di wax ci samay def ku ci dul def man li may def dañu lay xelal ba nga def waraat naan xoolal la muy def eh fomp sama rongoñ dootuma jooy ndax léegi xam naa ne nit ku la nit ñi la nan nañ yaa ñaanal ma.
bu dul woon ak ñaanu yaay kon xaw ma fu may mujjee fu may mujjee fu may mujjee bilee xaw ma fu may mujjee bu dul woon ak xol bu nice yëf ci baax fu may mujjee suma xol bu nice bii moo ma ci génne daf ma yàgg yéene lu bon te xamul fu may mujjee mu rey ma suul ma tey waa ji loolu nu mu ko bëggee daf ma yàgg teg bët ba mel ni ku may mujjee noppalul dem toog ndax mënoo ci man dara dinga dee de dara kii dina dee de mënoo ci man dara tey leen ko dina dee de dara tey rek nga dee mënoo ci man dara matu ko matu ko matu ko li nga rap dafa mënut lii aju ko rasu ko xale sax dafa mënut lii xeta nga nangu ko suma gaay yi bëgguñ benn bu dut bii eh seen papa ñëw na am ma may la fifty di na bii bu duga sa rakk ji man la buga nee na attaque ni muy rappe bi lay daf ma duga ñi ma rey oba na fukka gaawal woo sa mboka maa ngi fi dew ma fen foo yàlla mu taa wax ju bari jaralul ma histoire may nelaw boobu maa ngi dóori waar maa ngi dóori waar buubum soow bi woo si naar woo ci naar ma jëngal ko ñu andak doo fa jaar bi lay doo fu jaar bu dul woon ak ñaanu yaay kon xaw ma fu may mujjee fu may mujjee fu may mujjee bi lay xaw ma fu may mujjee bu dul woon ak xol bu nice yëf ci baax fu may mujjee suma xol bu nice bii moo ma ci génne daf ma yàgg yéene lu bon te xamul fu may mujjee mu rey ma suul ma tey waa ji loolu nu mu ko bëggee daf ma yàgg teg bët ba mel ni ku may mujjee noppalul dem toog ndax mënoo ci man dara dinga dee de dara kii dina dee de mënoo ci man dara tey leen ko dina dee de dara tey rek nga dee mënoo ci man dara dem nga fu ne def ma lu ne teg ma tuuma sëriñ suma xalaatuma gis ma ci gaalu xaj bi bilaay doo ko fekkee sant naa yàlla maam booy nee na ma xam nga cere magul booy yow ko jooteel suñu xoolee yaa ko doon sa jikko ji neexuma sa xorban te ñaan lool bul ko jéem bul ko jéem mënoo ci man dara bu dul woon ak ñaanu yaay kon xaw fu may mujjee fu may mujjee fu may mujjee bilee xaw ma fu may mujjee bu dul woon ak xol bu nice yëf ci baax fu may mujjee suma xol bu nice bii moo ma ci génne daf ma yàgg yéene lu bon te xamul fu may mujjee mu rey ma suul ma tey waa ji loolu nu mu ko bëggee daf ma yàgg teg bët ba mel ni ku may mujjee noppalul dem toog ndax mënoo ci man dara dinga dee de